ñii di yor di ak di saaga di rek. ñun ñu ngi liggéey ci suuf. mais mais c'est important on a parlé du parti mais l'avocat aussi il faut ñu wax ci tuuti. Hmm. maître El Diouf l'affaire le dossier Adissar, oui xam nga ni ñu noppale dégg nga démb xaw barki démb li nga xamni mom la avocat wu wa waa Sonko yi bind. di laaj dossier bi pour ñu jox len ko. Hmm. parce que tamit comme mom il est au devant de la scène ñu koy convoquer tout ça té amagul dossier bi loolu noko jangaté maître maître Khoureychi Ba moo bind lettre bi de. man damay bëgg a de. ah lu xew. xanaa ngi dof pare bëgg dof loo nit ñi xanaa Momar umpale woo ni lu masul am am ci dossier boobu Momar xanaa umpale woo ni am ñaari journalistes yoo xam seen liggéey moo doon falsifier dossier bi tous les jours génn ay PV comme am nañ PV bi kay lu koy laajee juge. bu leen ma def loo hmm. kii Papa Alé Niang la tudd kii Ahmed Aïdara di liir ay PV waaw ku am PV ba da koo liir kay nga hmm. ne da ngay bind pour laaj PV <laughs> yow koo yëpp. Ah, mais Ousmane Sonko ak ak journaliste fi nga lim. même bokkuñu. bokkuñu pare gu ma de hmm. am nañu sukkandiku wër ci ñooñu di wax. waaw di wër télé yi. naan affaire bi claté na claté na. wala na wala amul terme boobu dégg ko. parce que dañoo le dossier bi. dem seen TV daan Nous amna am le wala amul Momar. du ma tudd hmm, ñu jël équipe euh, pour communiquer di wër télé C'est yi di génne ay le di lu C'est neex de <laughs> hmm. non le capitaine Touré.

Fouta <laughs> yaa ngi Sénégal yi ni PV bi leer na soo ko deful dara. ak affaire bi léegi nag ñu ne ñu ngi laaj dossier bi. mais ñoom yemul dossier bi ñu defaraat. est-ce qu'ils ont droit au dossier. mais El Hadj El Hadj El Hadj ci laaj dossier rek.

kon am amatul secret. mais mais avocat yi ñi ko wër diko wara layal war nañu am dossier bi. non ça dépend ci juge bi c'est c'est à la libre appréciation du juge. ah oui ba xamee dossier bi diko koy génn ci benn diko taxawal du ko jaay jaaf. ya mais day yàq liggéeyam et ils l'ont montré dès le début ils ont voulu gagner la bataille de l'opinion taxaw di wax lu leen neex nan PV baa ngi nii ku ne naan yore naa PV bi ni légui nag biñu démé ba xamni ni xamuñ dara lu nekk dossier bi xamuñ ko dé ñu bëgg laaj dossier bi rek kon la ñu waxoon ne moom la am ci dossier bi ba ni affaire bi kalaate na kalaate na mais ku wax lii wax la ca def waxal lii itam <laughs> ni yemuñu ci laaj dossier bi nee nañu nañu baral mbir mi pour ñu atte leen ci laa jëm si waaw voilà ça c'est important aussi Momar est-ce que yaakaar nañu procès dina am sax Momar bañ euh, ne léegi dañuy laaj juge bi pour mu baral waaw Babacar man de foog naa ne yi xam nga pangol. waaw pangol waaw mooy. ñu am nañ droit ñoom. waxe ak waxe les morts. Mm-hmm. le juge les morts moom mooy accéléré. Ah. ñoom waxee juge bu mu accéléré ana juge bi. non parquet la ñuy wax parquet bu ñu waxee juge. dañ ko war a remplacer hein? mais bu ñu waxee juge. mooy système judiciaire bi dafa war a continuer. Mm-hmm. ñu désigner ñu désigner un nouveau doyen des juges mooy dossier bi mu continuer. d'accord mais avant ngeen. looloo tax ñu wax ñom ñi naan na juge bi accéléré dañu té ñoy yéxal dossier bi ndax kañ un nous avons mu tal na mortal combat nous le rayenté Nous du wuji bu wala def flagrant mu jeex affaire bi jeex procès bi jeex bu ñu nous bu ñu Fall mhm. jël avocat immédiatement dafa démissionner. C'est mis à la disposition de la gendarmerie. non c'est le ni gendarmerie Il fang un moom loolu flagrant délit koy il est présumé innocent. Oui, mais flagrant délit am non non loolu flagrant délit ah rek flagrant délit la preuve que ñu flagrant délit instruction la dem. C'est quoi, flagrant délit kuy homme de loi. Hmm. action bu un temps voisin de l'action est mmh. poursuivi par la clameur publique y phase des la mais du le xam culpabilité la culpabilité a ci droit au départ bu la fekkee que paaka di rendi ba le dee mmh. tu n'es pas encore coupable tu es présumé innocent pourtant ñu nga que paaka bi ngay xotti ngi gis ngay tu es encore innocent

de prison prison comme comme comme aussi. Il ma te ce qu'est liberté provisoire. Mhm. liberté provisoire selon la procédure pénale. Et mhm. la liberté provisoire peut être obtenue à tout moment de la procédure pénale. Mhm. la liberté provisoire j'en ne exception. quelle que soit l'infraction. ça c'est vrai. alors que nous avons

A contrario nous, Simon ak Kilifeu déjà dañ une preuve bi de leen c'est pas une preuve légitime. est-ce que le tribunal va na accepter. Babacar L'avocat est mi Babacar oui. kan qualification. Mhm. pour juger. Mhm. si une infraction est grave ou pas est-ce que yow la. de Quand vous connaissez ku ne wàcc sa ànd rek ànd boo de commentaire yooyu ñoom juriste juge seul le juge et maître de sa procédure. Même le chef de l'État, c'est les juges assis, magistrature, mhm. famille debout et assis. ne dépendent de personne. Alors, que l'IMO est grave, pourquoi il faut bien est grave, faut passeport diplomatique hmm. Non, je vais poser une question. Faut qu'il y ait un faux billet.

laaj ko bàyyi ko ñoom Abdoulaye Daouda Diallo moom mooy jeune frère. <laughs> Ah, il n'est pas le seul là. waaw ah, ñoom <laughs> lu <laughs> ah, la bokk. faux billet moom fu mu bëri. day daal day biimal économie man du ma fa nekk di qualifié mais dama ni. waaw dara gënalu ba may ay Marine Le Pen. ñu naan Sénégal war ñu leen wuloo visa ñuy rang bu nu ambassade France. assemblée nationale tax ñu koy wax. mais assemblée moo tax ñu koy wax ah. ñu dem ba suñu passeport diplomatique le monde entier di ñu ŋaññ loolu député tax ñu koy wax de c'est pas avant député yi dégg ngeen ko ak euh, ak bëgguma dugg ci détails ay dossier demal demal mais ah, ñoom sax nee nañ tax ñu bàyyi bañ jàpp ba affaire député bi feeñ ñu soog ci def seen bos so leen a jàpp déggoo ñu wax loolu maanaam waroon nañ jàpp bu yàgg bàyyi ba député yi bokk ñu soog leen a ñaan loolu la ñu wax waaw affaire passeport diplomatique yi. Mhm. avant député yi la woon. c'est vrai. xam nga man du ma fenn. waaw waaw ragaluma kenn de waaye kenn jaraluma.